réew 24 TV. jabar jàpp dem indi nekk fële yor xaalis ak indi si jabar wax wax wax waaye alhamdulilahi rabbil dëgg rek ay poste yi ma filim sànq nga xam ni loolu dong laa def ci fukki at ak ñaar yi nii amul ci benn poste boo xam ni dinañ la jox alalu askan askan ñi koy yor dañ koy xam yi ma lim nii yooyu yëpp doo jote alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo ngay nam waaye ñu xam ni que metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñuy njaboot metti na ci suñuy wayjur surtout bu la yàlla nattoo nga am wayjur bu mel ni man man sama wayjur bâtir réputation ci au mi avant ñu may xam mu samp am Du ci diine di wax di des di xutba di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar leen seen doom ci maandu yar leen seen doom ci milliards man ni ma ko dundee metti na mais moom ni mu ko dundee metti na mais yàlla moo wax ci alxuraan wal asr innal insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñii ja même yonent yàlla moo wax wal asr innal insaana la fi xuus doomu aadama bépp nag yonenteeg sëriñam ñëpp ci biir lépp lu mu def perte na ko illa lazina amanu wa amilu saalihaat ba mu des ñi gëm cay julli watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr nekk ci dëgg waaye ànd ak muñ yàlla moo wax donc ñu ngi sant yàlla ma leen wax ma laaj rapport premier rapport man boog maam mbay ñaar bi gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo lu loo xam wax mais sama damay wax ni janvier 2024 bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu non, pré rapportu rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am na ñu jàpp ni que liñ ma laaj sax waruñu ma ko woon laaj waaye ngir njekk ak teraanga ak wormaal ña ma laaj damay tontu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax la ma waxoon démb mooy li ma wax tey moom lay wax wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci Mame mbay jël na tarfatal ay ni nee la bu ñu ma woo dañ ko publier man maay yóbbu sama bopp donc ñu ngi sant yàlla mhm. kon jàppal ne que comme que yaa ngi ma gis nii ma taxaw mhm. et que man rapport boobu ngay wax aw trois wax mais am naa ko am naa ñaar yëpp bu ma ci gisoon kon tey bu ma ci gisoon luñ ma ciy jiiñ wala luñ ma taxaw kon du ma taxaw fii yóbbu naa sama bopp yàgg na taraan nga ne reddition des comptes. non déedéet. dama ni euh, président a dit euh, la reddition des comptes a pour plier les organes de contrôle les corps de contrôle IGE Cour des comptes c'est na organe de contrôle et reddition des comptes c'est un rapport day mujj donc ñu Je suis là, ça daal sama waxu démb ça sama waxu tey जो ኢንሻአላሁ ረቢ ሞይዶን ሰንቦ ፖለቲክ ማ ተፈሪ man gis nga ni yow yang ngi ma wax loo seen gis nga ni que tey du waxu politique nee naa la réew dafa am période politique am période liggéey am nañu sénégalais yi wóolu leen bàyyi ñu liggéey parce que dal dafa boo fàttalikoo rek man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa ki ma àndal